bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloo noonu di ñu seetaan noo ngi am mbégte di ànd ak yéen ci jataay bopp ñi ngi ko amale fii ci kër Serigne Abdul Karim borom makaarimul axlaax moom Cheikh Mahmadul Fadal moom Serigne Touba Xaadim Rasul tey jii ci ajuma ji ngir ànd ak yéen ci waajtaayu bis bu tedd bi ne ci suñ kanam mu di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab mu di guddi gi nga xam ne ci la Cheikh Mouhamadul Fadal feeñe woon jamono ca Daaru Salaam ngir ñu ànd ak bokk yi nag ci waxtaan woowu ñoo ngi nuyu bu baax ki fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ko wér waaye siyaare Serigne Abo Baraka xalifa Cheikh Mouhamadul Fadal ak mbooleem njabootu Serigne Fallou gépp di fab ziar boobu nag di ko teg ci loxol borom ëtt bii di Serigne Abdul Karim di ko ñaanal yàlla. taxawaayam sun borom yàggal ko lool te dolli ak wéram te defal ko mbooleem ñu topp ci ginnaawam te defal ko mbooleem njabootu Serigne Touba gi ak taalibe Serigne Touba yi ñu feggoo ci jataay bii nag ak sunu wayjur di kenn koo xam ne bu jàkkaarloo ak moom rek da daal di xam lu bari ci fi nga xam ne fi la jataay bi jëm mu di Baye Gora Seye Baye Gora Seye bokk ci ndaw ñi nga xam ne eh, yàlla baaxee na leen ba ñu feeñee jamono rek seeni wayjur jur leen ci yoonu murit waaye jur leen ci ëttub moom Mamadul Fadal yëkkati leen teg leen ci loxol sëriñ Falilu mu jàngal leen yaral leen boppam lu bari ci liggéeyub sëriñ bi ci ak mu jëm lépp bàyyi góor sëy mi bokku ca ña taxaw woon loole doonoon jëwriñ ci daara yi sëriñ Falilu eh, ñu feggoo ci sunu ndijoor ak sëriñ Gànna Mesre Maxtaar moom it ndaw loo xam ne eh, ba ko yàlla dimbalee ci wàllu njàng lam doon jàng lépp mooy sëriñ bi ak waa këram waaye ñu feggoo ci sunu càmmooñ ak sëriñ fallu Jatara sëriñ fallu Jatara it bokk ci ndaw yi nga xam ne ndaw yi xam-xam lañ waaye xam-xam ban mooy xam-xam boo xam ne ci njàngaleem sëriñ Touba Xaadimu Rasuul la tënku mu génne ci daara yi sëriñ Saaliwu moom it nekkoon fa jëwriñ ca daara yi njàppandal ngir njëkkante ak waxtu wi nag bokk yi dañuy bàyyee bàyyi góora eh, mu nuyoo ak bokk yi daal ñuy indil nag ci jëmm jooju nga xam ne moom lañ fas yéenee waajal bisam ñu xam kan mooy sëriñ Falilou ci wàllu xam-xamam ci boppam waaye wàllu baatinam wàllu pas-pasam ci sëñ Touba ak li mu liggéeyal sëñ Touba ak liggéeyub sëñ Touba lim ko jaraloon ak ak niteem xam àdduna ak li mu jariñ ci àdduna kon dañuy bàyyee Baye Gora su ko defee mu nuyoo ak bokk yi tàmbali kon Baye Gora bisimilah.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 ak bokki taalibe yépp ñoo ngi fii kanam kër Serigne Abdou Karim Mbacké moom Serigne Fall comme nii ko sëriñ bi waxe léegi noonu la demee bara noo tàmbali waxtaan yi nag dañuy ñaanal sëñ Muntaxa Mbacké mi sëriñ Touba ñaanal Cheikh Abo Mbacké mi fi nekkal sëriñ Falilou ñaanal Serigne Abdou Fatah Mbacké mi nga xam ne moo yor kaddu waa kër Serigne Falilou ñaanal nag sëriñ bii nga xam ne moonu fii ngir bëgg lu baax te di ko xeñtu na ko war a xeñtoo kon lii njëlbeenu waxtaan wi moo di sëñ Fallu sëñ mooy li ma tàmbaloon ma dellu ci sëñ Muntaxa ma demee ba jox ko loxo as jaxate moomu ni ak moom waaye moo xam kàddu yu ma diis ndax li may wax kii seere la mhm. dafa daal di wax aas na ko sama xarit a ngi sama jëwriñ a ngi est sama xarit a ngi sama jëwriñ a ngi bi ma xamee baaga mën na ko nag sëñ bi li ma fi indi tey mooy ñaanal si la ñaan gi nag ñetti baat la mooy yàlla ak yonent bi nit ñu nangoo liggéeyu Sëriñ Tuubaa yàlla na ni Sëriñ Tuubaa nangoo sa liggéey amiin loolu laa ko ñaanal daal di tàggatoo moom daal di ñëw sëriñ bii teg ci woy yoo xam ne doy na war jox ko sëriñ bi sëriñ bi liir ko bég ca lool ba far téye këyit kon fii nu toog tey muy ndindi kër sëriñ Fallu moom la sëriñ Fallu njëkk am ci àdduna ci dëkk 1900 1913 bi mu koy gor fekk na am na ay mag yoo xam ne dañoo jébbalu woon ci sëñ Tuubaa waaye sëriñ bi tàmbali fii sëñ Fallu moom tàmbali na ndindi ba nàmm fi naweti nawet sëñ bi doog leen a jox ndigal booba mi ngi ànd ak ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Xari Njaay sëriñ Ibrahima Xari Njaay mooy maami sëñ Abdu Samad moo jur mooy juróom bu jigéen mi ngi ànd ku ñuy wax Abdu Xayta Njaay sëriñ Abdu Xayta Njaay moo waral dindi ab ñu ñuy wax sëñ Buur Mag Sëy moo jur sama baay Demba Korka Sëy ñoom ñett ñooñu kenn ku ci ne sëñ Tuubaa di jóg kenn ku ci ne sëñ ko ci loxoom ñett ñi ma la jox bu ëllëgee ni ma la ko joxe nag may dell ak bi mu tàmbalee léegi gor dëkk bi ànd ak mag ñooñu ak seenu njaboot ñuy liggéey di yóbbu njëriñ liggéey boobee mi ngi tàmbalee ci juróom benn fukki góor ak ñeent ñi nekk ci daara ji ñii di borom kër ñii di liggéey di indi sëriñ bi nekk fi di liggéey suñu liggéeyee baagale sëriñ bi fab lañ liggéey ak liggéeyu bopp li muy dundal Sëriñ Tuuba boole ko teg ko ci loxol góor gu ñuy wax Massar Sarr maam góor a sëy moo koy jox ay gëléem mu sëb ko ca yit ko Sëriñ Tuuba njariñ diiru treize ba vingt-sept Sëriñ Tuuba ñibbi si Tuuba lu fi rek yóbbu na ko njariñ teg ko ci loxol Sëriñ Tuuba mu delloosi ko ba ni sëñ Tuubaa dikkee mu yeesal ko ci sëñ Mourou Moussa noonu lay doxee ba jumaay Tuubaa ji ubbi ko sëñ Tuubaa digle ko wax ko jëf ca bi te maam sëñ Fall ci boppam dikk fii ci Ndindi carrière bi feeñ fii ci ndokk bañ waxee na kenn ku ci ne na joxe lam man ci ay nit ci sëriñ sépp ku am ñaari nit ku am benn nit ku am ñetti nit sëñ fa lu ndindi jiinu toog la tànne ñaar fukki ponkal ak juróom ñetti daara fi Tuubaa ànd ñoom dem ndokk bii am na photo boo xam ne bii ñu bari ci fo nit ñi gis nañ mi ngi toog ca kaw carrière ba kaalawu sëñ Ousmane sa toog wetam am na nguur su dend ak moom am na ñu ko defee am na kuñ koy eh, jàppandal di wax ne moom la waaye man kama jàpp ne moom la du moom ndax yooye jamono du moom sëñ Fallu tàmbali liggéey boobu fekk na bind na sëñ Tuubaa wax ak moom ci dama laa bëgg a liggéey toog nañ mu wax ko bind na jox ko benn bis sëñ Tuubaa yónnee woolu ku mu ñëw mu ne ko bind nga ma leetar wax ma toog nañ nga wax ma liggéey ngi dikk nag boo xam ne bii na nga ca feeñ liggéey ngi dikk boo xam ne bii nanga ca def loo man ak loo mënu liggéey ngi dikk boo xam ne bii ku dikk na la ca fekk ku dem na la ca baax bi yàlla dogalee liggéey bi feeñ sëñ Fallu nekk ci bi mu doonee xalifa 1945 Serigne Abdou Fatah Mbacké moo njëkk a feeñ ci xalifa ak sëñ Fallu ci góor soxna May Galas tege ca bokk ak sëñ Abdou Karim mi sëñ Fallu nekk ca noona di liggéey daal di gor ñànk gii tàmbali ko am fa yetteet jëm tuxoo fi dem allié gi am fa juróom-ñeenti at tuxoowaat allié delsiwaat ndindi 1959 fekk na liggéey jumaa ji lépp lu sëriñ bi bay doon na xalifa ba li jumaa ji noppee le 7 juin 1963 sëñ fa lu am fi mbay ma mu gàtt lépp lu mu bay rek mel na ma lu mu def def ci tàmbali jumaa ji tubaab bu ñu wax na ak senado yor ko ba ni jumaa ji noppee sëriñ na jiital ci payu weer par yaari weer yetti jii fay leen jiital musuñu ko topp moom moo leen di topp ba lépp nag bi nu tuxoo dikki ndi ndigi cinquante man mii danoo jóge alie dem Touba yelwaani reer booba dandaa dee bu nu yelwaan see bu noppee dañuy dajee ci buntu kër sëñ Fallu ki giis bi àndandoo di groupe delluwaat aliya biñ fi toogee di négaate sëñ bu saama fi fekk fekk mbooloo mu nit ampul bi ana ñi toog ñu ne nu na mun a ñooñu mën a ku ne mun kooku du góor a mën a ko mu ne ah mu ñoo luy sëñ bi ma daal di jilee moom maa ko fekk ci baraagu sëñ Moustapha Guèye mu daal di may ampul ko waaji see ma ne ko waaw mu ne ma ñeme nga fi ndindee ma ne ko waaw waa ma yebal ñeme naa mu ne kaay demal ma ndindi soo demee neel sa baay dem ba kork sëy ak Modou sëy bu subaa ci talaata bi danaa fi ñëw seet si àll ba yeesalaat dëkk ba damay ñibbi muy cinquante boobu yàlla dogal na mbayu aliya mi jaay nañ gerte ba àggale te sëriñ bi defagul dara ca la tuxoo aliya deltini bi bi mu dikkee bisub altine la xëye fii bi ma ca guddi ga rek laa dikk fekk maa ngi julli timi timi gee ba àggale toog ci bunt boobu bunt bi bitig bi ma daw dikk nuyu sama bàyyi na ma looy wut naka ni mbaa jàmm la ko waaw mu ne ma losoo ma ne ko sëñ bi ma mu ne ma sëñ ban ma ne ko sëñ ban loo wax ne ko sëñ a loolu kenn du ne ko sëñ fa ma yónni mu ne ma lu wax ma ne ko nee na bu subaa ci talaata ji dana fi ñëw seet si àll bi yeesalaat dëkk bi day ñibbi di séngando ñu ne loolu lu ciy pexe ñu daal di woo góor gu ñu wax mondaat mu yéene dëkk bi na ñëpp génn ñu taal làmpi weer ya ngeen xamoon yooyu pétrole daal yor ay ampoule bay pénc mi ci ba mu set wecc ñu radd ko suul ko daal dem ci diggante jàkka ji ak buntu kër bi Ibra Xari Njaay mi ifaatu barki démb moo fa fanaanee jàng ba bët set ci bi ñu xëyee toog tuuti oto bi korne maag góor gu ñox Ibra xëriñan noo fa jiitu sëñ bi ne nee leen mbooloo mi nañ toog xaar ma ma dem te ñëw daal di aw yoonu penku bi diir bu gàtt mu daal di bu ko ba mu dikkee wàcc oto bi dafa daal laaj sëñ Baaba Njaay ñu sëñ Baaba Njaay mu yor bant bu mel ni sans bant bii dikk ba jub ko na ko Mbàkke sëñ bi ne ko njaay daal di ko ne jege si mu jege si mu ne ko maanaam sëñ baaba njaay si gindi gaal sa doom ci baax ja màgg njaay sëñ baaba ne ko si gindi gaal mu ne ko baaw euh, sëñ baaba mu ne ko mbakki mu ne ko yaa baax doom màgg njaay moo baax liggéey bu ma mas a su ma ko séenee rek sama xol set waaye ku ko gis tey de dana xam ne seral sama xol moo gën tàng daal di koy jaal daal di toog tuuti fekk na tubaab bi commissaire bi nekk ci Mbakke nit ku ñuul la woon ñu ab tubaab la woon ñu di ko fi war a jëlee di fi indi nit ku ñuul ñu di ko wan si chef de village bi ñoom ñoo ñoo ñoo cadré si ñu lañ fi ci addiya yi lépp ñoom ñoo ñu laal dem sëñ bi ne ma yow booy añ dara delluwaat yi ba ñu añee ma daal di dellu ñu teg ci ay fan mu daal di woote allié donga yëpp daje mën na na néeg yëpp daara yi borom kër yëpp daal di leen muy seen fekk na jumaa ji lépp daana kii lépp lépp taxaw na benn soro mag bi moo ci mu jaay gerte ga jóge fa dellusiwaat ci ndindi ji xëyee fi bésub altine dem fondation soro mag bi bi mu koy fondation ci biir jumaa ji la yem ca koñ bee féetee kër sëñ Thierno fa lay yendu ba takkusaan bi mag mu ñaanal nit ñi jëlaat otom delsiwaat nit ñi di altene talaata àllarba alxames mu dajalewaat dongo yépp ci kanam su ma saa woo dongo yi laxasaa yi nag du nangu kenn kenn ku leen ñoom rek ak moom bi mu dikkee ba toog daal di woo ñëpp ñu toog mu ne damaa bëgg waxtaan ak yéen daal ne liggéey bii ma ne ànd ak yéen di ko liggéeyal Serigne Touba soror bii ma tàmbali bër ci démb moo ci des moo ci ëpp moo ci su noppee ba ma weexal ko bu ngeen liggéey ti lekk leen oh, mu ñu dal daal di tàmbali cinquante neuf soixante soixante un soixante deux soixante trois jumaa jumat mu inigré ko ci ñaari téeméeri ajjuma ak fukk ak juróom-benn doog a dem lam nu daa wax ci xale am na ndaje moom daf ne alxames ji ma jëm fu dongob laxasaay nekk na ma fekkaat yi maa ngi fii ñu di ma yett loo xam ci nit ñu woosi ma bañ dikkee ba sëñ fa luy wax wàccut oto bi dafa laaj jëwriñ ju ne ana kamala jamala joxoon nga ne ko ñu ngi nii mu ne ana moo dee fis mu ne ko maa ngi bi mu ne ana Mor Cissé mu ne maa ngi bi ku mu laaj ne ana gaañ ñu ne ko ñëw bi fekk ne aliya juróom yaari daara fa ne daaray Sam Ñang daaray Mor Cissé daaray Fall Cissé daaray Youssoufa Touré daaray Ablaye Ndiaye daaray Maam Mor daaray Cheikh Ndindi Cheikh Ndindi moom nag mooy bàyyi alaj Cheikh Ndindi mi moo doon sama jëw daaray Touba Mirina daam mbay daam jaxate ali Diop ngañ luum kenn musta bay lu Gàmbi bi yàlla dogalee sëñ bi dikk woote ñëpp na xaram mu ne yéen ñii fi toog dama bëgg a waxtaan ak yéen tey ndax ay nit suñu àndee dañuy waxtaan ma xëy si sëpp sama tànk teg sama tànk ci suuf ngir liggéeyal sëñ Tuubaa ngeen gont kon nan waxtaan daldi ne yéen yi dajee fii tey dama leen bëgg wax seen bopp man damaa fekk la sëñ Tuubaa tànn cee la yàlla la yonent bi tànn ci sunu borom ba teg ko fee ma tànn cee la sëñ Tuubaa tànn di teg yi mu yéen ñii daal ne yéen ñi dajee fii tey ëpp leen yéesu leen gimiñ jikku leen su ngeen ëppoon da ngeen di ñëw ci ba sëriñ bi ñëw bu ngeen yéesoon sëriñ bi ñëwee booteem ngeen ñëw bu leen gimiñ duggoon da ngeen di dajeeg moom dara waaye yett yi dara dal leen ci daal di ne yéen ñi dajee fii tey kenn ku ne ci yéen tund wa nga dugg jóge fa ñëw fii tund woowee dëkk ba nga jëkk dëkk jóge moo kenn moo gën ca dëkk moo gën ca dëkk kër ga yow ma jóge ca kër ga ñëw fii yaa gën ca kër ga kër ga néeg ba nga génne dikk bii yaa gën ci néeg ndax damaa tànn ci li sëñ Tuubaa tànn di ne maa ngi leen di wax nag ana Modou Afis mu ne ko maa nii mu ne ana Modou Cissé mu ne ko maa ngi mu ne ko ana gaañi mu ne ko ñu ngi fi mu ne ana gaañi mu ne ko ñu ngi fi mu ne nekk ci àll bii na ñoq seen tuba yu gàtt yi te tilim ak seen tilimaay bii ak seen naaju tàng wii ak ngeer meeg ñax meeg ngir sëñ Tuubaa mun ne mu ne ba booba daal di noppi daal di wàcc bi mu duggee ci kër gi ba mu demee bay bëgg a dugg mu ne gees na déglu leen waay ñëpp na xeram kenn yëngu mu ne ngeen dégg li ma wax sa jàpp ko murut di alali baadoo la du xam muru sa kamati ko yi ba mu duggee ba toog diir bu gàtt sëñ Moodu bu sa jeng daal di agsi ak sëñ Moodu xabaan biñ liggéey sëñ bi daal di woote waat ci biir ñëpp toog mu fab am buuj bu nit gaa yëpp say say say daal di fab am buuj bi samp sëñ Modou Xaban <coughs> daal di ne ko yow mii ak sëñ Modou mi kenn mënu ñëw fajaaje gaa yi rek mën a fajaaje barki borom gaa yi rek gaa yi junni ne ana Mor Cissé mu ne ko maa ngi nii mu ne ko faj leen sama sëñ Maodo Diouf taxaw làmb poosam génne ñetti junni na ana Mor Cissé mu ne ko maa ngi ni mu ne ko am faj leen sama aajo bi mu noppee bay sëñ bi daal di ne ana Mor Cissé mu ko maa ngi ni mu ne ko ee eh, waaye ndaw duñ ma ko yóbbul de jox naa la gàtt xar ak saako gépp ci kër fal ci bitu fal sa dem leen te pénc ma rey ko togg ceeb ak yàpp ci guddi gi lu yàgg lu guddi guddi trois millions ne lu ma daal waa ji du ma a xapp ba di rek booba ñetti oto nekk ci dëkkër gi ay 46 kenn ci ñun koo xam ki da naan sa morom kaay yenn du am da ngay fekk saako gerte nga fab sànni jàll di ko def di ko def ba lépp nag sëñ Fallu du kenn kenn du benn bis xëy nanu ba sibbi ñu di gerte yi fu bën ma sa sibbee nag moo yeegaar yëpp moom du nekk ku naan tooy nag tooy bu xëyee rek jëlootu bi kañ xanaa kañ jóg leen kañ benn bis la fi at mel naat bët see bi di wéeg bët see daltu yëpp na takk leen dama koo leb ba dama koo leb dem leen liggéeyal sëñ Tuubaa dama altine ji ba altine ji del mu daje donga yi jëwriñ jox leen gëléem na leen la ma leboon laa fee gëléem gi dem leen rey ko dem ca daar ya togg ceeba waaye bu ko kenn defati benn at ñu ci gerte yi ba gerte yi sax ba jóg muy wër tool yi ba dikk daal di police ba mu demee ba war a jàdd di xool jàdd gaa yi baare gopp ne oto bi di jàdd sëñ bi ne lii lu mu doon ñu ne lii ñuy liggéey sëñ Tuubaa kenn na du ko yàq ayut ci yoon sëñ bi ne loolu ngeen métier ñu ne kenn du feebar sëñ bi ne loolu la mun a mun a bàyyi li noo ma jàll fu ma dina wuti fu ma wut barke ñu ne ko demal yow dong at moomee tool boobee daane na gaay yëpp ñaari téeméer bëri na juróom benn nun mosunoo bay lu gànt sëñ Fallu man mii wax ak yow nga xam ne man maay wax sama yaay ci bokk sama ndey sëñ Daawuda Mbay ci caamin bi sëñ Fallu tukki di dem wër njàmm dafa dem caamin dëkk bu ñuy wax caamin war a dem kër sëñ Daawuda Mbay bi mu fay dem lal bu méngoo ak sëñ Fallu nekkul ci kër gi sama yaay dem lu ko jënd fa lalu diima ca diima yi nekk di wéer ko ci buntu néegam dugalu ko ci néeg wax ko sëñ daaw mu dikk àbb si suba te awuma lal bu méngoo ak moom daa ba nga dimbali abal mu ne ko bisimilah borom këram ne ko sa ko doog a jënd mu ne ko dama ko joxe jërul wax mu yóbbu ko dem ñu sampal ko sëñ Fallu bañ ko ko sampalee mu ne fa ñu di ko ganale ba mu am fa ñetti fan ba muy ñibbi ba génn sëñ Daawuda Mbay woo sama yaay te sama yaay am nag borom këram fukki at ak juróom-ñett mosuñoo tiim doom ba may dem sëñ Daawuda woo ko mu ñëw mu ne ko kii lal bii nga toogoon ci néeg bii aw ko moo ko jëndi woon dikk ma abbay ko sampal la ko ngir nga toj am na ci séem bi fukki at ak juróom ñett damaa bëgg nga ñaan sëñ bi ne ko yomb na waa ji ñetti fan ñett rek. ñetti fan ñett ñetti ñett rek. <laughs> ba mu jàllee sama yaay jëli weer mooy sàmbalaaw bi jóg cët ndax ba mu noppee mu tekki ca kees ba mu noppee mu tekki ab sa jóg. fa la yem kooku mooy sëñ fii nu te fii nu toog fii nu toog. <laughs> góor gu ñor dem ba ant sëy fii ci ndindi sëñ baara mu mag moom sëñ Tuubaa mooy sëriñ sëñ ma sàmbay xaritu benn bakkan waaye sëñ fa la nangoo dëkk keroog ba mu faatoo ñu yóbbu ko defar ko baagale ay ndox di daal sëñ fa lu yëkkati parasol di bi mu sampee parasol xetu laaj ko mu samp ñu deltu gën a sëñ bi kàbbal ba mu ko julee baagale ñii fa mën a teggal ñu def sëñ bi na leen dembaante mi tëdd mi tëdd sëñ baara sëriñam sëñ ma sàmbay xarit bëkkam waaye may dëkkando fii ñu koy dugal nag sëriñam di ca doon dara xaritam di ca doon dara man ñu mu dëkkaloolu dana la jabar maa ko def kon fab day jóge te ku ne jikko yoo xam ne danaa ko leeral sëñ Fallu boppam jëmmam ni mu ko def noonu la defal waa këram bi tuub ni mu bëggee sëñ Tuubaa nangu ko ne liggéeyale muy ab sëriñam doomi sëñ Fallu yëpp yëpp yu góor yi yër yu jigéen ni la ñu doone ay taalibe noonu lañ bëggee sëñ Fallu noonu lañ ko nangoo liggéeyale noonu lañ toppee ci gannaaw képp koo xam ne kii yaa ngi ci seen kanam kii nag Sëñ Karim xam nga nit it yàllaa koy jagleel yoo xam ne kenn xamul makaarima lox laa ko ba ko yàlla sakkee yàgg na sàkk ko ci sëñ Abdou Karim yi sàkk ko ci keneen waaye yàlla na muy def ñu denc yëfam ba mu jot mu joxe ko loolu la yàlla def sëñ Abdou ci makkarama la dëgg la defewu ko ci gànnaar defewu ko Mali defewu ko meneen réew Sénégal dëgg la makkarama la laax mm. fii mu ne foo mën a dëgg foo mën a jóge ci àdduna boo bi ndëb leen makkarama la laax ñu ko sëñ Abdou dëgg la loolu nag liggéeyum ñu njëkk ñi la mag ñi liggéey nañu koo bi gis danaa la wax tey loo xam sëriñ Fall mbiram fii ci nit ñi foofu lay daane bëgg fii sibbi ci daara yi ak morgan wenn façon boo xam fii sëñ dëkk ne moo ko wenn ba dëgg la ñëpp tiib ñu tàmbali mu laal kenn du ko laal du ko mu tiib ñu dikk wax ko sëñ bi sëñ bi bu ko laal bu ko bu ko bu ko yar laal de demal laal pour mbir ma rek biñ ko indee taw sëñ baa ngi toog nee ci laal bi mag ñaa ngi toog buntu baa nga ne laal góor yottal ne ci kaw bi mu dikkee taw sëñ bi ne ko jàpp bu jàpp mu ne ko eey eh, yow seetlu nga li nga def waay gor su toll nii yow mel nii nga mel te naw la def la fekk la fa nga nekk ak lam la fa ba nga mel nii sëñ Tuubaa ñu ni ko liggéeyal sa naw la yëpp nekk ñanaajo nga gànt seetal li nga def dara jar na ko ci yow ay seetlu nga ne waa ji li liggéeyal sëñ Tuubaa bi nga di ko am dem bu ma gis lu yàlla laal ko dem leen waaye daal di dem bañ demee teg machine bi mu mel ni dóor na ñu teg ci saaku teg ci saaku teg ci bopp du ko def ba def ko ñetti fan mu ji juróom-ñeent sax ñeenteel ba ñu ji ko mu làkk mu bañ mu bañ ñu ne leen biñ dikkee indiwaat ko sëñ sëñ bi ne tey du ma ci boole wax tibbal suuf jox ma rek ñu tibb suuf jox ko mu ñaan ñaan tafli na ko demal demal wol wol ko jeex na ko jox na ko liggéey li parce que kenn bëgg sëñ fa lu maye donc yëpp dañoo maase na dem sëñ bi woote ne maa ko maye ñu ne ko xam nañ ne yaa ko ma may ko waaye du dem mu ne ko neen gone yii sama fas yi maa ko maa ko maye waaye ji maa ma ma kenn mën sa koo gis ay jëli ca seen tool yi waaye di liggéey ci maa maay sonko fabaliku day yóbbu fa eh, sëñ Fall am na fi oto boo xam ne bii wutiir bu na rafete kenn mësu koo gis suñ toll wàcce ko di ko doxe ngir léegi oto bi du taw ñaari kilomètre képp taxaw ndax tàng sëñ buuse bu njàgg sëñ buuse ne ko oto dañu ko war a delloo seet ba nii moom ko nga ne lan mun a ko tax daan taxawee nii rek taxawal mu taxaw mooy moom sëñ wàcc na ko ubbi ubbi mu ubbi bi ne ko eh dangay ngay seet fa tugal ne fa tugal ne ñu ñu def léegi nii nga mel ma am ma ma ma am soxla fas wu ma war a liggéey li sëñ Tuubaa di fekk la seen nawle nga gënal ma ci ma ma ma jële fa ngir war a liggéey sëñ Tuubaa nga tàng ba muy laa jëriñ waaye seet li nga def waa li ubal doo ko dégg mu daal di barke sëñ Touba. sëñ bi yor na oto bi ba ni mu ko may. sëñ Abdou moom maam Thierno bi nekkoon Darou Manane la xëy soo woo ko mu dikk mu ne ko fas bi dama ko doon doxee léegi li ma ci doon tox mat na fab ko yóbbu mottalil ma ko. waaye doo too dégg aw tàngooram boo maa ngi ñaanal bépp mu bu yaakaar sëñ Touba te bëgg lu baax màggal ko su rajo bii ku ci ñëw mën na maa wàcc sëñ Touba. yitte yoo mën a indi nu mën a demee sëñ Fall li may jeexale mooy Léopold Sédar Senghor dafa ñëw fii gane si sëñ Fall yenn fi ba ngoon sëñ bi di ko bi jël biñ demee bu jubóotu Senghor na sëriñ bi ngan gi neex na lool waaye man damaa jël sëñ bi na ko juum mu ne ko looloo juume mu ne ko damaa jóg yoon woo xam ne wii dama koo jóg ba noppi te munta pomp te waxuma la loolu laa juum te yoon wi am na yett yu ci bi sëñ ko yett yu mu mu di ko wax sëñ bi ne ko yett yi nga wax mën a mën a ko danaa ci teg beneen muy ñeent waaye bi bi ma ci teg nag man waaw lan ko noonu la waxoon mu ne ko am na pakk buy fële sëñ bi ne ko danaa di ci pakk bi maasale ko ba ba adduna tukki du la def loo ñaari la woon mu ne ko kàmb mu ne ko danaa ko maasale booy dox man ngaa gëm doo ci daan bu ba adduna tukki loo ko ñettee la woon mu ne ko luy doge mu ne ko danaa ko sa bët ci tege ko ñeentee la muy man moo di ab dox pour wutal ko bu yóbbu bu mu yóbbaale li yoon wi sori sori doo xiif doo mar foo toll yaa ci kër waaye nguur fi nangu la dox. mu ne ko dinaa dox mu ne ko nangu la dox. mu dem bay dugg mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko li gàtt mooy lii nga yor na ci sa xel dara doo watu ñu watu la doo desu la demal. kon dem yéen ñi dem leen. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. jërëjëf sunu wayjur Baye Gora Seye kàddu yi jëlale na li ci ne ci baatin waaye ak set gi waaye wér gi ci ma waaye teg nag tege gi ci nose gi nga xam ne lu ci nekk fàttewut na jataay bi mele bu daanee la rek da ngay mel ne yaa ngi jàkkaarloo ak jataay bi yàlla nu yàlla fayal sëriñ Falilu waaye mag ñi yàlla nañ fi yàgg ndax ñooy référence ci ñooy delluwaay xam nga lii doo ko jàng ci benn téere te lu ko gën a wér wut ci téere waaw eh, eh, lu mel ne ah, machine nga xam ne sëñ Fallou wane wut kiimaan ci machine bi waaye fi pas-pasam toll ci sëñ Tuubaa lay wax machine bi maa dem ba tugal fekk la fa ci le ma jënd la tànn la ngir war la di la liggéey la sëñ Tuubaa nga ñëw di tàng sa tàngaay wi lu ko jar ku tàng kenn du ko jariñoo waaye gis nga ba mu ca noppee ndax oto bi du tàng dañu wax ne sawara du lakke ndox du sedd yàlla ca ne bu ci yàlla gënoon rek du tàng bay lakke ku le weddi nga laaj sawaraw Ibrahima ba mu ne bërëx di tàng sun borom def ko ne yow tàkkal ca tàngaay yow nga ñëw waaye moo tax yal nañu yàlla fayal mag ñi waaye yàlla fayal sëñ fallu kon sëñ Gana dégg nga fi Baye ga Baye Gora daaneele sëñ euh, sëñ Fallou ak bëggam sëñ Touba mandargaal na ko ci jëf waaye mandargaal na ko ci ay bayit nit ñi ñi nga xam ne yàlla xeer jox na leen xam-xam jox leen leer ñoom it mandargal nañ sëñ Fallou ak bëggam sëñ Touba kenn ku nekk bind nga ci day mel ni nag nit ki li nga koy waxal sëñ fal nee na woon fu maane teewe moo ne duut fa amu yoon lii bàyyi góor a wax jëf la waaye sëñ Fall ci boppamit waxal na boppam sëñ Gana

te yéen ci loolu it fexe ba ndox mi daw bi nga xam ne mu ngi noonu am ko xam dañu wax ci boga la waxoon dafa waxoon ne eh, boga bi boo fa demee dafay mel ni Tuuba ak jàmm la di ubbee ay buntam ñeel ñi koy tabbi waaye nag ca dëkkaale kan di jawaare xëddul bi xayral xam ne ci gën ki ci wuutu muy Cheikh Bamba Fadal ci kaw suuf nga xam ne xayru xalifa nga xam ne kon dafa rempli lu war ci moom ci aw melo diggante nag boroomam diggante sëriñ bi ci taxawaay bi yàlla yëpp ne booy seet ki ci gën ci jamono na ko ndax moom day Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne eh, mahabbatul

Thank you.

ndax ci jot la fee ñaari weer rek di jëm bànn yoo xam ne yadul xabili la bi yudaa bi saabilina maa naala fadlika la anda wala naka xabarta jiile ko foo xam ne fi abadin wa fi samaai yëpp sa diratika laqad tamassakta min samsina min amari fa sitta baxra min al-amwaali wal-awlaad allah yusuf al azim ñu def ngëneel bi yëpp dañ leen saabili leen fadlu sami juróom la bëgg sami maa ngi leen sant la xamal ndax ñu ko jar ñu nàkk yaari yoonu ngal jërëjëf sëñ Gana macha allah baax na wax nga jotaay bi li ngay jóore bi ndax gaay yi am na nga borom xam-xam yi ñu wax ko joxe xalaat suñ fànn faaw nit ñi yëkkati seen kàddu bi ci parce que bénéfice bi fële ndax daan nga ko def bu boobaa bénéfice boobu nag daan naa wax ne fokk nga ko addi kon ñu joxe addi loolu lépp ko joxe ndaw bi addi jëlee bi njabaat bi addi daf ko jaay jënd ko ak taal bi ba lépp taal bi dafa ñëw ak taal bi joxe addi ñu ko conseillé ko loolu loolu kon ñu ngi jàll ci baax dafa tax ñu ko def seen sàmm dafa moom nag beneen bi beneen bi tuuti seen sàmm ay bëggoon nañu nga seeral ñu ci beneen bi li mu mel seen sàmm ak taxawaay yi gàmm ak rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala wa ashaabihi tayyibina taahirin ginnaaw bu ñu nuyoo ñaanal al mu yàgg fi loolu te gën wér ñaanal ko njabootu sëriñ tubaa gépp ñaanal sëriñ Abol Baraka mi nga xam ne mooy buntu sëriñ Fallu mu yàgg fi loolu te gën a wér ak njabootuk sëriñ Fallu gépp ñu ngi ñaanal it Cheikh Abdul Karim ibnu Cheikh Mohamadul Fadil mu yàgg fi loolu te gën a wér euh, sëriñ Fallu ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Baye Gora Seye di nuyu sëñ gànn Messere Mokhtar xam naa nag la nga xam ne moo daloon Cheikh Awa Balla Gueye ci kanam Alaaji Baara dafa am genn màggal goo xam ne daal damaa xamul fu mu xeweeti woon Alaaji Baara teewoon ci jox ko kàddu mu waxtaan ba noppi ñun nañ jox Cheikh Awa Balla Gueye Cheikh Awa Balla Gueye jël micro bi daal di maasa aqulu baax dal amiin yi ginnaaw bu amiin waxee ba noppi man xawmatuma lu ma ciy teg euh, alaaji baar moomu la sëñ Abdou Karim mi waxoon ba mu doonee xalifa mu ne ko li tax sëñ Fall tuddee la Amine maa ngi koy doo a xam Amine ñi lay wooyee ndekke bu doomi suñ tubaay noppee ndeke yaa war a fab te kuñ wóolu rek lañu war a jël teg ko ci loxoom eh, muy kàddu gu dëggu man damay wax tuuti rek ci turam bi ak lu ma ci sama sëriñ waxoon sëriñ Saaliwu xam nga alxuraan dana xul bi fadlillaahi wa bi rahmatihi fa bi saalika fal yafrahu huwa mi mimmaa yajmaun kon fadlullaay du lu ndaw ginnaaw suñu borom nee na ngëneelul sama ngëneel ak sama yërmande lu ngeen mën a dajale ci àdduna ak àllaaxira moo ko gën ci àdduna ba àdduna daj wenn tur la fi muy sëriñ Fallu ginnaaw bi ñu feeñ ñëpp moom lañ ko tuddee ñu bootu ci ginnaawam ñu leen di woowee galas galas ji am secret mënuma woon a xam lu mu doon waaye man nag sëriñ Saaliwu ma ko feeñalal ndax euh, janatul maxwaa la ma toog ci wetam xam nga sëriñ bi ku ko xam xam ne moom janeer bëggu ko fu mu toog dañuy fay làmp yi euh, mu mu tëdd ci njowaan yooyu ñu ko daan defal di ko ràbbu mu daal na gees yem ci man daal ne ana kii may bëgg a tontu Abdoulaat jaxate na ko fàllu jatara la mu daal ne ma tur woowu kañ ko tuddee woon doylu ci sëkk yow nañ lay wooyee galas sëriñ Serigne Saliou ma ko wax de daal ne ma tur woowu de kañ ko tuddee woon doylu ci sëkk ma ne ko moonte man de samay mbokk sax ñëpp galas lañ may wax mu ne ma doylu ci sëkk de daal ne ma tur woowu kañ ko tuddee woon doylu sëkk ndeke kon fàllu ji xusuusiyatu la ci sëñ li tax sëñ fàllu lijjanti ba ne ana jalas fii Touba jalas jooju mu mujj doon galas ñi nga xam ne Sëñ Fallu kenn xamul doon ndeke bëgg naa soppi tur ci mbooloo bi ñu ko tuddee jël galas ji taftal leen seet leen doomam yi sëñ Mourou Boussa Dieng Alaaji Baara ñoom ñëpp ba ci njabootam gi doom juñ am galas lañ koy wooyee sëriñ Fallu Mbàkke nag mënatuma cee wax lu gën a kawe lu bàyyi góor a wax ak li si liñ gànne mesar a wax ndax bàyyi góor a moom naq lu tuxalut daa fekkee Euh, sëñ Gana dafa toxal waaye lim toxal wér na ndax jëlee na ko fu wér waaye daal li am solo ba am solo mooy sëñ Fallou amoon na ci sëriñ tubaa dégg goo xam ne musuma gis ko jamonoon te kenn am ci dégg gu toll noonu dégg googu sax taxoon na saxaaba yi ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom nag sëriñ tubaa dafa ñëw mu dégg ko déggin woo xam ne doy doy na war ndax euh, bayit woowu ngeen indi ne sëñ Moussa Ka wax mooy doomi samsin wax xamar ba ba teg ca lam ca teg ba àgg ci ne moo nàmp yaari meeni gor loolu dafa may sëñ Fallu loo ne doy na waar ndax sëñ Fallu sëriñ Tuubaa mooy sama waajur dara gënu koo neex nga am loola man koo bàyyi xëy jaay sa njureel jëndee ko taalibe ci junj boo xam ne sëriñ Tuubaa junj na la ko rek te junjandoo la ko ak mbooloo yow nga jóg am ci dégg gu jël saw kayit bind ci la nga ci bind euh, bayit nag du ci jaaraat ndax ñëpp xam nañ ko daanaka ba mu noppee ba jaay kuñ juréel gi jëndee ko taalibe ba jël la cay ak njëg jox sëriñ bi dana ko fal taqbaluha sëñ Fallou foofu la yeewoo ndax sëñ mën naa nangu mën naa bañ a nangu mu ne ko waaye nag moo ko nangul nag yaa malaasu ndax dama xam ne yaay wéeru waay ma wéeru ni ñëpp boo ma koy nangul nang ma ko nangoo karaman te bañ maa jéppi ci sag mbaax ndax yow da ngaa tiim ñëpp di rafetlete kenn yow faale woo kenn laa siltumoo baynal baraaya alama yow fi ne amoo looy wuti ci kenn ñëpp lay wuti sëriñ bi ne ko amal jawaabu fa fil masalatayni sëriñ bi da ko ton de daal ne ko falaata taalamu nafsun maa uxfiya lahum min xurati ayunin lii nga def tey lu ma ko gënal amut sedd sedd xol gi nga xam ne am naa ko sama digg ak yow ëllëg rek lay leer një njëg moom mooy loolu yi mu ko wax li ne ci man danaa ko def ci yow bu ci xajutit ma xaj xajal ko ci ñaareel ba sëriñ bi ne ko lii nga def muy njëg gii nga ma jox te moom sa njëg jox ma ko yasurrukum da nga ci bég da nga ci bégle wa yanfaukum dana la jariñ da nga ci jariñ wala yadurrukum doo ci loru te doo ci lor keneen kon euh, sëriñ Saliou it mas naa wax ni dafa laajte ne doomi sëñ Fàllu yi nañ ma laajal nuñ demee loolu xam naa nu mu demee xam naa it kër kañ dem eh, bokk bokk na ci ñi gën a doon ndaw ci saayir bañ accès dañ ne ko ah, kooku day tabaxam ba tubaarkal sëñ bi ne loolu de laa foogoon ndax sëriñ Fàllu da leen fee bàyyi woon ne ci ñun ñun ñi bokkal sëñ Tuubaa lu mu am jox ñu lu mu am bokk ñun bàyyi doomam suñ ko masaan a wax mu ne cerey bàyyi jàmbur du ma ko xonte sama doom suñ fàllu noonu la def ay doomam gis nga doomam bi tey foo ci dem ñenni la gis ngeen fii fii sëñ du kërim ci suba maay waxtaan ba wax kiñ ko dippee muy sëñ du kërim mu mag ma mooy taw sëñ Fallu sëñ Abdou Karim daal ton na ah, waxtaan ci moom jot na nag daal di jëlal boppam kàddu gi daal ne sëriñ fallu bu masaan bu nit masaan a jóge ci sëriñ ba génn gis ko niroo gi ëpp na da day wax ne waaw man ndax damaa jommi sëriñ Fallou ci néeg bi ci biti nga xam ne kon loolu niroo gu doy la waaw léegi nag ñu ne sëriñ Fallou daa mosu mujj ne ko ah maa yow suñ mbir dina doy waar lool ndax li may liggéey sëriñ Tuubaa ku kenn mënu ma cee wutu la daloon sëriñ Ahmadou Yadaali ca Mbàkke ñu wax ni Euh, soxna Fadja da daan gis bu sëriñ bi defee dara mel ni si amul dal da ciy dolli dara soxna Fadja naa ndax dana sotti kii kat du àndandoo kenn te mel na ni amul dal bi nga ànd ak moom. juróom-ñeenti at la am sëriñ bi woolu borom saam ba mu ko woo ko wooloo ne ne ne ma indil ahmadu dal waaye jërut muy ñëw jolof gi lañ ko fekk mu ñëw sëñ bi téye ko ay fan bind ab leetar daal di jël këmb boole ca borom saam teqar ci leetar bi. na mu ne woon mu ne waaye ndaw li nag lettre bu ko xool këmb bu ko xool mu àgg si borom saam te xar ci ko gis Serigne Touba bind ci ne ko ahmadu bi sama borom moo koy laaj euh, këmb bii ci la càngaayam ne waaye nag moo ko beral boo ko seetloo ñi jiitu ñëpp Serigne ahmadu dal dong lañ ci lañ ci ber. tey bi ma waxee loolu. loolu xaw na koo yëngal. ba mu fàttali ko ci turandoom yi lu doy war daal na ñu bari sax dañoo jàpp ni. Euh, dafa kii rek ñu tuddee ma ko déedéet daal ne am na diir nag ñu doon ma ko tuddee daal ne nag am na pàkk yu ma am ci yoonu Touba Bogo ba ma ko amee ba noppi ci laa doog a xam ne ay toolam la te daal na ba ma ciy dugg xawuma ne moo ko moom daal ne fii ngi ma dëkkee nii tey ci ay toolam la bokkoon nett na nettali na ci nettali yoo xam ne li muy yeesa tax mënu ma koo jàpp waaye nee na fii ci ay toolam la bokkoon lu ci nekk rek nee na bi muy am ndax nee na sëñ Fall def gi ko def looloo mujj waaye mas mas naa doon tool yi sëñ Abdul Karim mi ngi ko tuddee nee na daal loolu mu ne mayit am naa tawféex loolee nekkoon ci ma moom dirot ci man loolu sama tawféex la loolu wax na ko tey de te ci micro la ko waxee kon moom li ma xam ci moom bari na bëreegut waaye wax naa fii keroog ci kanamam bàyyi góor a toog ma ne ko daal li may tënk mooy jaxasoog doomi Sëñ Tuubaa ku ko def téewul mën a jaxasoog yow daana jafe lool ci ku jaxasoog doomi Sëñ Tuubaa mën a jaxasoog keneen loolu wax la joo xam ne dama bëgg ñëpp lañ bët li tax ma wax ko euh, lu mu bon bon am na ku ma jaxasoo am na ma xam ci moom tuut jaxasoog moom mii amul lenn lu ma dérange ci moom ndax li muy def lépp ci yoon la ko teg mooy ci bëgg sëriñ Fallu dafa fas koo ko liggéeyal te loolu yi ay ay magama ko seere te li nga xam ne yàlla dogal na sunub xame ca daari sëriñ Saliou la loolu danaa leen ci wax tuuti xëy na waxtu wi du ko maye waaye maa ngi leen di yëgal ni ba mu ñëwee gis ma maag Tafa Sarr daanaka ñuy ay gone xam nga lu ñu njëkk a wax xam-xam du ay caaxaan xam-xamu yàlla def nañ duma leen xeeb ñun taxuñu de waaye ka ñu fi teg dana ki leen fi teg xam naa du fi teg ku ko matiwul dégg nga dégg nga jooju wax jooju wax du ma ko fàtte ndax loolu dafa dafa teg Serigne Saliou ci kaw daf koo tagg ndax am na ñoo xam ne gët ñëw nañ fa waaye daanañ doxee ni ñii ay gone ndax am na ñoo xam ne daan ñëw di wax ne sas wii gone yi ñooñu ko sas waaye sëñ bi sasuñu ko kon ñoom wuute na ak de te ba toolee desee it bañ ne ko barab sàngam la des dara du fa jóge mukk te àggut te ñun ñoo ko wax xame bi loolu la ba yàlla dogal lii sama diggante moom tey waaye maa ngi leen di yëgal nii këram gi am nañu fi xëy si ñoo xam ne dañoo mel ni ñu dem marché yor seeni bitig saa yuñ ñu xëyee fii lañuy ñuy si mu teg leen ci mbaar mu sedd guy bu añ jotee mu jox leen ñu añ jox leen boisson jox leen ni doom su duggee ba ci biir daal ne sama waa kër yi ñaata lañu li ci gën a néew ñaar fukk ak juróom lay doon li ci gën a néew laa wax de démb ñaar fukk ak juróom-ñett li ci ëpp ñeen fukk jëm kaw la kenn ku ne mu yëkkati la muy yëkkati jox Lamine Mbodj mu yót leen am na si Lamine Mbodj daa ñëw ne ko sa waa kër yi mu ne ko Lamine Mbodj ñoo ñoo ma gën ñor ñoon jërëtu nga ma koy nga ma koy nga koy wax saa yu ma duggee rek xam naa ne ñoom laa war a jëm soo gisee mën a tekk rek daa am lijjanti bu mooy lijjanti waaye su ma noppee ñoom ñoom laa jëm saa yu leen rombee nag dugg ci kër gi ñaan ne lañ koy ñaanal ñaareel ba kenn ku doon gan te xam gër kër gi lu mu néew néew bu ñu laa demal barab sàngam ba boo nga xam ne lépp fan lay fekk maa gis ku dugg fii ci gan ñu fàttali la loolu daanay am de te bu amee dañuy xam ne jaadu na nit nit nit a tax waaye ñi nga xam ne ñoom la ko siqal muy waa këram ñi fi nekk fi mu ne nii mooy soxna maam ami ak soxna fat bintu mii ka ca des ma nga Amérique waaye léeg mu ñëw wenn tëralin wi la su demee ba dugg ci biir mooy jël téléphone ne ko sal sàngam moom sëñ bi de day woo daam ne ko daam sal sangam ñaata fa ne te téléphone bi lay daam ne ko nangam mu mu soxna soxna su fekkee soxna si moo aye wala soxna si soxna maam wala soxna Fatou ku ci aye rek mu ne ko sal sangam day nangama fa ne ñoom it ñu mën a jàpp lañ waaw lim leen xirtal moom nangu nañ ci xirtalu ñoom loolu nag lu ma xam la bu noppee fur wi ci kanamam lañ koy defee. gis nga bàyyi góoram yi ñu dendal nii dafa woote ni nay njëkk añ nay njëkk reer woo ay woo ay soxnaam ñu toog woo dongo yi ñu toog ñu koy toppatoo nay njëkk añ nay njëkk reer loolu xamul nga lu mag mu toll nii di la yendu di la guddi la ko bëccëgal boo ko doon jox ay milliards te cof ko ci loolu cof nga ko ci lépp c'est këriñ ku doy waar la su ko defee soxna yi ni ñuy jàppee mbir mi lu ma jaaxal la bu ko defee danañ tibb bool yi toll noonu indi ko ba ci biir néegam bu defee dañ tibb yóbbu de dañuy indi ko ba ci teg ko fekk fu fruit bi bay njëkk a dem moom mooy toog ñuy def fruit bi fi ne bu fekkente ne gis nga gis nga fruit bi ñëw fii ak boisson bi fi ne am na ku fi dugg ba xool leen te yëgu leen ne xool la leen ba xam ñaata fi ne bu ñu àggee dañuy ëppal lépp du ko xool ngir bëgg ko caa yemale waaye day bëgg mu ëpp gis gis ngeen li ma leen wax fi ne am na ku fi dugg ba xool ñaata fi ne te yéen si xamu leen ko nit ki mën naa dugg day kanaayal nag bu fekkee miinoo kër gi doo ko xam am na ko yor ataaya ku naan Pape Ndiaye ataaya loolu gan kër gi am téeméeri junniy gan ak fukki gën a ci yam loo lam nekkoon du ci jóg li ma la gën a li ma lay wax daal te di la ko wax mooy jëgg kafe li ma lay wax daal mooy lu mu lu mu niiw niiw niiw niiw bu fekkee kenn nekkul ci gi ñeenti xar yi mu du manqué kenn ni ko lu mu gën a néew fukk fukki xar juróom koo xam ne da koo xam ne daayira day ñëw di la siyaar si bala ñëw ñëw nga jëndu nag te buñ xoolee enveloppe bi nag wa ëpp ko doole fuuf loolu moom lu ma seere la te wax naa ci bëccëg bi may waxtaan rek nii wala taktumu shahadata wa man yaktumha fa innahu azimun xalbu sëñ Fallou xoolal séquence bii mu def ci magam ji digle ñëpp ñu siyaare ko loolu xam nga lu doy waar la lu ma ta waxtaane la digge ca te lim ci digge rëpp am daal ne man de bu ma toogee fii xam naa fu muy féete ci kër gi naa tàll sama loxo xam naa dem gi dana jafe ci man xoolal loolu ndax nit bu fekkee yàlla dogal na ñëpp di la déglu te loo wax ñu gëm ko yellantikoon nga wax luy jëriñ nit ñi tey ji ëllëg moom li sëñ Blaat noonu wa maa arsalnaa min rasuulin illaa bi lisaani xawmihi bu leen defee ne ab yonent rekk a tax yàlla di ko def nabiul mursal ci yonent bi lay mun daal na képp koo xam da nga naan dama ñu ne ah mursal nga ci ñi koy wax moom nag bi mu doonee mursal yàlla dëgg dogal ñëpp di ko déglu xel mi da ko dafa sell te sell gi xel mi sell foofee la koy jëmee ne lim ci jot a yor day bu fekkoon da ko jëmee feneen kon balañ ko turu àddina tukki ndax nit ñi déggal nañ ko jërë ngeen jëf yàlla na fi yàgg loolu te magam yi ànd fi yàgg ànd ak moom yàgg fi loolu te wér taalib yi ànd ak moom ci liggéey bi ngeen jëf Euh, sëñ Fallou Diatta xam naa foofu lañuy tëje jataay bi sax ci Baye Gora indi euh, na kàddu yi nga xam ne seere na ko ci sëriñ Abdul Karim euh, daf ma def loo xam ne moo ma fàttali lii ca def ma marqué nit boppam daf ko jege am na ko doon wax ku ma mas di wax na ma man de bàmba ji li may rëy rëy bu ma ci yëgutoon sama bopp sama yoon du ci ne sama bopp rek ma ci bàyyi waaye koo gisit daraa koy bàyyi fi barab euh, sëñ Abdou sama wayjur dafa génn àdduna sëñ Gànna te àdduna sama wayjur ma ci gën a ñor mu jekk-jekk rek woo ma téléphone na ma sa kër laa jëm si ma ñëw mu ànd ak ñi mu war a àndal ñëpp bi ñëwee toog sëñ Fallou Jatare mii ñëw sëriñ bi ne ko damaa bëgg li may bëgg wax ngeen déglu ko naa mu ne ma influencé wuñ ma ci demal demal jaale ji Fallou Galas te normalement war naa man a ne bu nekkoon nit jaadu na ndax nit laa te damay fàtte kenn waroon na maa mën a fàttali na ma njaalum fàllu Galas ma waaye fàttaliwuñ ma ko influencé wuñ ma ci pour na ma Fallou Galas sa nit war nga caa dem ñëwuma ci pour hasard man maa ko xalaatal sama bopp ñii ñii di ñëw it kenn ko xamoon fi ma jëm si amul waaye maa xalaat na yéen da ngeen di liggéeyal sëñ Touba te waar wi ngeen di nekk di liggéeyal sëñ ñun ñoo leen war a fekk si ci waar wi ndax bu doon football kat wala musicien wala caaxaankat ya buñ ca xewlee ña caaxaan ñor ñëpp dañ leen di fekki kon nag yéen ñi ne ci waaru sëñ Touba bu ngeen xewlee ñun ngeen war a gis loolu moom moom la ma sama xalaat may moo tax ma jóg seet si la ma la sëñ Abdoulaye waxoon na kuy liggéeyal sëñ Touba taalibe yee la war a fay moom bàyyi na xel ñiy liggéeyal sëñ Touba loolu it laa gëmee ci moom ci ku mel ne Baye a Seye ku sëñ Fallou tarbiya mu wóor la ne le ah faatoo la tee bi àjjana loolu du lu ñu laan natable sa adduna it dootoo ci ñaan kenn dara njël suñ borom fàggul na la ko koo ne fa moom mel na kuy tërbi yowaat sëñ Fallou rek da gis di koy sëñ Fallou ci moom waaye bu du toon loolu du la fa gis loolu loolu danga koy jàngati ci mag ñu mel nii xam nga ki gën a naqaree téye mooy dongab tërbiye bu am ngërëm daanaka gisatut kenn lu ko bàyyi fi barab rek dara la beneen bi nit ñi e, dofuñu bukki dégg naa dafa séen jant bi muy xonq mu ne gaañi lee ak ndawal la nee bukki yëpp fexandoo ba mu yàgg mu seen lu duti bukki tëf ca mu naa ah, ñëpp nag dofunu naa daw ñëpp dofunu waaw waaye moom ñëw ci sëriñ Abdul Karim te ab jaayil néwu ci ay nit piir yu mën a yor réew mi yu mën a yor Afrique ñoo fi ñëw ñuy ñaanlu si bi ma gën a marqué mooy bërki démb bi may bi may bi may bi may may sant sëñ booba teyatuma ko mooy bi may jël kàddu benn tubaab tubaabu bu bu weex tàll ànd ak rakkam dub julit dafa ñëw ci rang gi wax sëriñ Abdul Karim na ko sëñ Bàkki ñag moo ko doon jottali mu ne sëñ Abdul Karim dama am sama doom joo xam ne manga nga France euh, yaakaar naa fu mu waxane fa la jógeeti sax ci biir Paris jàppoon naa ko dëkk ba jàppoon naa ko ndax dafa ma ñor mu ne ko dafay feebar te hôpital yëpp yóbbu nañ ko fa mais duñ gis li ko dal ma ñëw nag ngir sàkku ci yow nga ñaanal ma mu wér ma xam ne tubaab bu bu weex tàll jóge Paris ndeyam ak baayam day français te bi ñoo ñoo fi jële woon sëñ Touba na ko lii nga fi woote du sotti nañ la fi jële ku bokk ci ñooñu ñëw ne lim doon woote mooy dëgg ndax moo mën a saafara sama sama doom ji ma xam ne loolu mooy sëñ Touba sëñ du yamut ci ñaanal ko daf ko ñaanal ba pare ne nañ na ko nañ la yóbbu ci biir dalal la boo xewlee ba noppi nga dellu te booy dellu nga bàyyi fi sa numéro téléphone te yóbbaale numéro téléphone soo demee na naan lii ñeenti fan bu saafara woo nga wax ma bu saafara woo nga woote waat ñu xam fi ñu koy teg kon loolu mooy sëñ Touba moo taxoon sëñ Touba ne defar leen seen bopp ba ku leen gis bëgg leen ngeen defar seen i jikko ba ku leen ñam du leen mën a bàyyi loolu nag day mel ne mooy tedd ngay jikko ji nga xam ne moom la tudde muy makaarimul axlaax beneen bi ci topp mooy ma jàngat ko ci sama bokki dongo yi fi ne wax na ko mën na maa yem dongo yi man ñooñu dañ dañ ñoo dañ man dañ ma neex ni ñu ci biir kër gi teraanga yi yëpp ñoo koy toppatoo waaye bu noppee dellu seen daara doo dox boo leen fekkee ci màggal goo xam ne sëñ Abdou Karim da leen faa yebal ci ngay xamee ne kii tedd ngay ko def na ko ci ñoom mooy kenn du leen jéppi ca lañ war a nekk lañ ne waaye mbuus du wadd te foruñu ko def ci ab saako su ñuy wax ak yow maanaam xel mu sell mi ñuy waxee ak yow ak yar biñ lay jox ci ngay xame ni ñii dañ leen a defar te nag sëriñu tarbiya loolu lañ koy doyee kon lii nga wax ci sëñ Abdou Karim mën naa ci seede foofu nag dañuy bàyyee ak bàyyi góora mu tëjal ñu jataay bi ginnaaw bu ñu ko santee bu baax a baax ndax lii mu may ci temps jafe na te ab barkeelu la ndax wóor na mën a ñiy seetaan jataay yi daan ci jariñu ñu koy déglu daan ci jariñu waaye ñun ñi fi teewit ñaan gi mu ñaanal rek ci baatub sëñ Fall boobu nañu dox leen jaroon na ñu fay lu dul jeex tam wax ñu ko kon góor ñi ngi sant bu baax te dala gërëm di sàkk nga ñu sun caméraman yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ñëpp ak mbooleem kuy seetaan jataay bi te fas ku yéene déglu ñoom ñëpp nga booy leen defalu ñaan ñu jox la nga tëj jataay bi bismillahi rahmaani rahim inna ansalnaahu fi leylatul xadri exactement leylatul xadri leylatul xadri xayru min alfi sahrin tanazzalu lmalaikatu wa ruuhu fiha bi salaamin min kulli amrin salaamun hiya waftah lanaa kulla baarin kunta faatihahu lissaaliina min alxayraati yàlla asbil sutuuri aslil humuuri kaasil xiyari bilaa kidaayi xalallahu ajaati wa ajaati kulli muslimin bi jaayi Cheikh Mamadou Fadal barke lañ fali taawilana umrana saahilana badana wa hablana rasda wa tawfiqa yàlla yaa malikal mulk yaa man jàll an xawatin irham jami alwara yaa haadi rida yàlla mi dimbale yàlla na dimbale yàlla mi taxaw yàlla na taxaw yàlla mi musal yàlla na musal yàlla mi wërsëgal yàlla na wërsëgal sunu teelu bi ak seen goog it na ko yàlla denc fi yokk àggut ci barke Cheikh Al Khadim barke Serigne Fallou sama sëriñ li ciy des képp koo xam ne kii màggal gii nu jëm muy Kazu Rajab di bisub Serigne Fallou sa xel nekk na ci ñëw Touba wala nga ñëw Ndindi walla foo ko mën a màggale na la wóor ne na la wóor ne sëñ Fallou teew na fa nangu sa màggal kon nag yéen a ngi sëñ Touba ngi nii faju aajo ngi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf yàlla ci barke Seex al nun ñii yal na yàlla ak sëriñ Touba doollee faj suñu aajo ci baaxu Seex Ahmadu Bamba barke Alaaji Falil Mbakke allahuma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim barke sëñ Fall